asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki réew mi mbokki àddina bi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen balu xaq maa ngi toog ak uh, imaam Babacar Sylla tey ci samdi ji ñu ngi nekk di def tournée di waajal le vingt deux décembre le vingt deux décembre mooy bis bi nga xam ne ci la ànd sàmm jikko yi ñi nekk ci bopp bi nga xam ne ñoo nekk ci bopp kuréelu ànd sàmm jikko yi ak kilifa yi nga xam ne nii ñoo nekk ci réew mi di war a daje fële ca institut islamique jullee fa tisbaar def délégation bu bu nu organiser ngir ñu dem ca assemblée nationale incha allahu taala fekk fa député yi nga xam ne ñoo engagé wu ngir déposer. proposition de loi bi ñu jébbal leen loi bi incha allahu taala démb ci ajuma ji dem nañu seeti yenn ti kilifa ku ci mel ni Cherif Maki Haydara teewal fi xalif général omariyen di borom xam-xam di deratu yonent bi sallallahu alayhi démb dem nañ yëkkati proposition de loi bi teg ko ci loxoom ngir mu jëm ci Thierno Bassirou Tall xalifa Cheikh El Hadj Omarul Fouti biñ fa jógee dem nañu jëppal fekk fa sëriñ maam Alpha Sy di doomu Maulana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh ak jëwriñam ja borom xam-xam ba sëriñ Pape Makhtar Kébé ñu yëkkati proposition de loi bi tamit jébbal leen ko ak bi jëm ci sëriñ Maodo si ak yeneen i kilifa loolu démb ci àjjuma ji lañu ko def tey ci samdi ji dem nañu fële ca kër Sërif Abdul Muttalib Haydara ca Pikin yàlla dogal jamono yi mu génn nekk bitim réew waaye ñu fekk farakam Sërif euh, Aliyun Haydara mu yëkkati. proposition de loi bi teg ko ci loxoom mu jëm ci magam Serif Abdul Muttalib fi ñu waxee ak yéen nii ñu ngi jógee nii kër Oustaz Hady Niass moom yëkkati proposition de loi bi teg ko ci loxoom ba léegi incha allah ñu ngi nii di wëyal di dem di seeti kilifa yi ci biir ndakaaru jamono yi Ababacar Mbuub mi ngi wër moom it di seeti xalifa yi démb gise na ak Serigne Mountakha Mbacké tey ci fajar la bàyyeekoo Touba jamono yi ñuy wax ma nga ca Kaolack bi ñuy jokkook moom ci ginnaaw gise naag xalifa Cheikh Al Ibrahima Niass jamono yi ñuy jokkook moom ma nga doon jëm lew na war a gisee xalifa Cheikh Al Hadj Mouhamad Niass incha allah noonu la ko fas yéene wooyee mboolem xulafaaw yi mu delluwaat ci ñoom waxtaan ak ñoom ci li ñu war a yëkkati teg ko ci loxo député yi. loolu benn résumé la rek ngir fàttali wala wax fi ñu tollagum ci liggéey bi wan leen ne ñu ngi ci te day continuer waaye li tax ñu bëgg a def vidéo bi mooy démb ci àjjuma ji danoo yeewu dégg benn journal bu tudd laas laas quotidien def ci à la une am opposition bi ñoom ñooy bëgg a jël benn proposition de loi yóbbu ko assemblée nationale ngir ñu criminaliser ngóor jigéen bi ñu gisee titre boobu rek démb ñu ngi koy partagé sunu page euh, page Facebook di wane ne demewul noonu waaye gannaaw bëgg nañoo xam lan moo nekk ci biir maag sañ Babacar démb ak tey ñoo ànd démb wër nañu journal laas amuñu ko ba tey jii ci ngoon gi lañ ko soog di am yër nañ li ci nekk yëpp nag ni ma koy waxee déggu may tubaab waaye nag dinaa comprendre yi tubaab mm-hmm. su ma yëree <laughs> ba tax na liir nañu li ci nekk waaye li ci nekk bokkul ak wax dëgg fa yàlla li am ndax lii nga xam ne nii moom moo xew nañu bañ a dugal ay manipulation ak teg xel te teg xel yëpp nag xam nañu ko yi journaliste yi di def nga xam ne nii ñi ngi bëgg a de débat bi yóbbu ko ci entre opposition pouvoir mbir yi du foofu proposition de loi bi du ay député opposant wala ñu dul opposant ñoom ñoo ko yóbbu assemblée déedéet Sénégal gépp lañu wër quarante cinq département yi waxtaan ak ñoom ñu signé pétition boo xam ne lu mu néew néew un million sénégalais yu teg signé nañu ko ci biir ñooñu sunu xalifa yi mboolem xulafaaw yi ŋànk kër diine yi ci réew mi këri diine ji ci réew mi signé ko mboolem ñi jiite association islamique yi signé ko mboolem imam yi mboolem kuréelu sëriñ daara yi signé ko ñu nekk ci société civile bi signé ko mbootaayu jigéen ñi signé ko mbootaayu ndaw yi signé ko élèves yi seeni mbootaay signé ko étudiants yi seeni mbootaay signé ko médecins yi signé ko loolu bu fekkee ñooñu ñooy opposant kon Sénégal ñëpp ay opposant la liggéey bi ba mu door léegi ñu koy topp kenn mënatu leen a wees na manipuler leen wees na woyofal combat bi wees na jàpp ne jaru ko wees na ëpp na ko weesu na jar ko daf ko ëpp pour ñu dugal loi bi ñu tëgg pour modifier article trois cent dix-neuf bi leeral ak fermer mboolem porox ndoll yi nga xam ne nii doon nañ fa jaar ba bu amee ay góor jigéen yu takkante Sénégal ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër kenn du leen mën a tëj ñuy ba bàkkoo benn góor jigéen nekkul ci kaso bi ay organisme fii ci biir réew mi di at jot ay financement te ñu xam leen ñuy jot ay financement wu góor jigéen fii ci biir réew mi loi bi bu jàllee yooyu yëpp dafay dakk ndax yooyu yëpp dëxëñ nañ ko ci biir loi bi su ko defee kon damay bàyyi Babacar Sylla al imam mu jottale ci moom itamit gis-gisam ci bi mu yégee wala mu dégg journal L'As li nga xam ne ni bind na ko di wax ni euh, proposition de loi bi ay député ñoom ñoo koy yóbbu assemblée wala ay opposant ñoom ñoo koy yóbbu assemblée ak sew-sew yi ci nekk ci foto bi rek ñu ngi ci def loolu imam dana ci dikk incha allah imam bismillah jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah yow Oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar di rafetlu jàngat bi di la wax ne loolu nga ci yëg rek biñ ko gisee loolu la ñu yëg mooy gis nañ ne am na ay euh, manipulateur ay mercenaires de la plume nga xam ne ñoom jàpp nañ ne pour ñu dund ci kaw suuf seen xalimba rek lañ mën a dundee te seen xalimba yooyu jëmewu leen fu baax mooy lépp loo xam ne yaakaar nañ ne ku ko xeex xeexal nga valeur ñoom contre loolu la ñuy liggéeyal bokk na ci journal bii ñuy wax L'As quotidien ni nga ko waxee démb li mu titré wax ne l'opposition déposé une proposition de loi mm-hmm. ba pare sax li garaaw moom dafa wax ni déposé nañ ko la quatorze dernier te loi bi yóbbooguñu ko mm-hmm. <laughs> mercredi prochain la war a dem mm-hmm. moom vendredi c'est-à-dire mercredi passé ñëpp yëg nañ ne reporté nañ ko yóbbu ko mercredi bële di ñëw la vingt-deux ñoom vendredi mercredi. jeudi vendredi ñu tiitre lii. Mhm. mel ni ku yëgul ni reporté nañ ko. Mhm. loolu nag li muy teg tegtale mooy ñun dafa mel ni amuñu presse ay pression la ñu am. Mhm. ay groupe de pression ñoo fi bëri teg nit ñi pression am lu ñu bëgg mbaa teg la pression ngir lu ñuy ragal ku ko wax ñu delloo la ginnaaw. encore joxuñu gëdd liggéey bi. ndax gëstuwuñu ay information ba léegi gisoo benn journal wala benn télévision bu bu def investigation bu jaadu bu wér. Mm-hmm. boo xam ne leer na ni kii xóot na ci liggéey bi pour jéem a informer askan wi sax. Mm-hmm. mais jéemu ñu ko def. Mm-hmm. dañuy dem ci réseaux sociaux yi di ci foraatu ay xalaat. dara gënul garaaw nag lii nga wax léegi mooy mu jël ay photo opposition. man gis naa fi photo bi ñu tiitaree Oustaz lim naa fi lu ma juróom benn député. mooy ñii ñëw kenn ci ñii. musuñu mhm. leen a gis musuñoo toog ñoom ci loi bi. ñii ñii mu lim fii. Mhm. damaa toog di compter di compter juróom benn ci ñoom ñu ma xam ñoo xam ne ñëpp député lañu. Mhm. kenn ci ñoom xamul sax na loi baa ngi dox. musul gisante ak ànd mu jikko yi. léegi mu tiitaree ñii que ne ñii dem nañ déposé ji loi bi. pour wane ne dañoo bëgg ñu criminaliser ak. ngóor jigéen. loolu nag gravité bi oustaz mooy dañoo bëgg a toxalee combat bi ci ay nit yu am valeur gëm valeur gëm diine di xeexal valeur dañ ko bëgg a toxalee foofu. Mhm. daal di ko yóbbu ci diggante opposition ak pouvoir. Mhm. su ko defee léegi nag nit ñi jàpp ne ah lii de yëfu politique la rek. ñii ay politiciens ñoo ko porté. ay politiciens porté wuñu ko les xalif généraux ñoo ko porté. ñoom ñooy tête de liste ci ñi signé. Mhm. Serigne kër Sy Mansour xalif général des Tidiane Serigne Mountakha. xalif général des Mourides Cheikh Mahi Niass Cheikh Ahmed Tidiane Niass Cheikh Ahmed Tidiane Ba mbooleem xalif généraux yi ci réew mi yëpp Cheikh Abdourahim Seck ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm Cheikh al Bekaay Bekaay Cheikh al Bekaay Bekaay bi ko wuutu ñii bu fële laay wax sax bu njaasaan ñii ñëpp signé ko ñooñu la waroon wax ne ñoom ñoo déposé loi bi waaye ba fii nuy wax yow am na opposition xam ne ubbeeguñu seen gémmiñ ci loi kon lu tax mu bubbale ko ba ci biir développement mi ngi wax les religieux maanaam ay religieux te débat bi du ay euh, loi bi du ay religieux donc nekk def naa gis nañu activiste ay rapport ñëpp ngi ci biir syndicaliste syndicaliste yi jàngu baa ngi ci jàngu bi bois sacré bois sacré ba ca Casamance nga xam ne gëmuñu diine voilà hmm. moo lay wan ne ñi ngi bëgg a toxal contexte bi ci sens boo xam ne may sens député majorité bi ay lay yu yuñ mën a ñàkk voté loi bi su ko defee ñooñu ëllëg ñoom ñoo leen di dajaleel ay lay naan leen lii moo tax lii moo tax bu leen bett ëllëg ñu gis ca assemblée ba ay député yu taxaw naan opposition bee ko porté dañoo contre Macky Sall mais Macky Sall wax leer na ñun doxuñu foofu ñun fi ñu dox fu leer la mooy lii dafa menacer diine menacer jikko menacer suñu culture menacer suñu leb ñu baax ñi nu xam ci réew mi ñëpp unanimité d'accord nañ nañ ko criminaliser su ko defee xeetu journal yu mel nii nag dafa jaadu sénégalais yi xàmmee leen ba bu ëllëgee information buñ la jox mhm. nga téey ci xam ne du ñu wax katu dëgg mhm. te encore ay yàqkat lañu dañuy orienté ay euh, objectif mhm. ngir manipule doomu aadama yi ba ñu xamati essentiel bi loolu daal laa ci bëggoon a yokk pour ñu xam ne laas dafay manipuler nit ñi opposition bi muy wax moomuñu ko ànd sàmm jikko yi moo ko moom. bi liir nañu article bi ba mu jeex moom li mu bind contenu bi sax moo gën li ci kaw. Mm-hmm. moom li mu affiché ak li ci biir bokkul. Mm-hmm. biñ ko ubbee liir ko gis nañ ne macha allah wax dëgg yàlla wax ne contenu bi baax na. Mm-hmm. macha allah mais tuddul benn yoon ànd sàmm jikko yi. te ànd sàmm jikko yi moo ko initié nag. mais lim na ba mu jeex wax li koy def yëpp yëpp laalul association ànd mujj ko yi loolu ban la loolu manque d'honnêteté la. Mhm. li baaxoon mooy mu xam ne ànd mujj ko yi moo ko porté. Mhm. dëgg la nag député yi ñëw engagé wu. Mhm. pour dugal ko assemblée ñu ngi leen di gërëm di leen sant. def nañ lu baax. waaye daal bu ñu ko yóbbu ci ay opposition ak euh, pouvoir. am na ñu ne ci pouvoir bi te bir nañu ne bu ñu demee ñoom danañ voté lii. am na ñu nekk ci opposition bi wóoruñu danañ ca dem. li wér damay ragal ne duñ ca dem. Mm-hmm. yàlla rek a mm-hmm. kon affaire bi du contexte politique. Mm-hmm. waaye lii affaire de valeur la. combat valeur la. jërëjëf oustaz loolu lañ ci bëggoon wax. am na solo imaam jërëjëf euh, mi ngi noonu defe naa imaam leeral na yëpp ba mu leer euh, liñ ci doon wax dolli na mu gën a leer gën am solo su ko defee rek ñu bañ a dugg ci ay manipulation te sénégalais yi nag defe naa fi mu toll nii surtout ndaw ñi. nga xam ne li ñuy def nii ñoom la ñuy gën a bàyyi xel ndaw ñi. ndaw ñi ndaw ñi fi mu toll nii euh, dañoo naan yeewu sël moo yeewu sangoo yeewu sol yeewu di tëdd ci yeewu di doxe dàll yeewu mbaxana yeewu musóoru yeewu kolu yeewu ndaw ñi léegi foofu la ñu toll kenn mënu leen nax génération TikTok bii may gis nii <laughs> kenn mënu leen a nax ba tax na loolu moom xel mi ngi ciy dalandi mm. ne kenn mënu leen a manipuler combat bu noobul la. Mhm. ay kilifa ci nekk ay responsable ñoo xam ne nii nekkul dañoo bëri jot rek di dox ko wax mais dañoo yëg enjeu yi. yëg mhm. danger yi. Mhm. yëg yi nu song di ñëw. ñi nekk bitim réew di dund tey ña ngay dund loo xam ne ak góor jigéen yi ñemewuñoo sëqat ngir jëmale ci ñoom ña ngay nekk ci mbedd yi di fóonante di def lu leen neex kenn ñemewu caa wax te bu ñu toogee di nelaw loolu mooy dikk ci suñu réew te ñaanuñu ko yàlla mu yegg si fi loolu ak yeneen yu nëbb yu bari li ñu dugal ci éducation beeg yi ñu dugal ci ba ci di layoo santé santé mm-hmm. Mm-hmm. di faj góor jigéen yi gratuite yooyu yëpp ñu ngi yég yëpp mm-hmm. te lu ci nekk rek ay financement yuy dugg si moo koy indi te ñu bëri li tax ñu tiitagum fi mu toll nii mooy bu loi bi jàllee loi bi dafa attaqué wàllu financement góor jigéen yi te ñu bari ci financement góor jigéen yi la ñuy dundee te loi bi daf ko attaqué Mhm. loi bi bu jàllee mbooleem ku yëkkati financement di ko jox góor jigéen luwaa bi day dal ci sa kaw. Mhm. ko defee loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax kon na ñëpp mànkoo geetaru taxaw loi bi dañ koy yóbbu assemblée day jàll ak jàmm incha allahu taala. Mhm. ñu protégé sunu réew protéger sunuy ndaw rawatina future génération bi nga xam ne nii ñooy ñëw ci kanam. ñu ngi leen sant di leen gërëm. Euh, di ñaan yàlla ñu fekke ko jàmm sunu borom defal ñu ci ndam lu yaatoo yaatu wasalaamaaleykum